pour avocat yi Ousmane Sonko maître Ciré Clédor Ly ak avocat yi Ousmane ñoom nag issa bi nag saisir nag Sénat ginnaaw nag ba ki nga xam si nag moom moo di Ayib ki nga xam moo di Ayib dafay demoon fële xam moo di ca DG ci ne la faal bañ rek na ju ko jox ay fiches de parrainage daal ki nga xam moom moo di pour avocat yi Ousmane Sonko ñoom nag saisir na Sénat wax ko nag lépp loo xamante nag yoon may na leen ko mooy ngeen jël seen décision rek jox Ousmane Sonko fiches de parrainage du ci mën dara nag. nag loolu nak def len ko ba tax na kon nak ñi nga xam moo avocat Ousmane Sonko nak def na lolu bind nan euh, ki nga xam moo Sénat appelé tax pour rek ñom ñu jox Ousmane Sonko ay fils de parrainage am kon nag di dinañ xaar ba xam waa Sénat top ay ndigal. Vous regardez Info de la chaîne du peuple. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de vous liker et surtout de vous partager. Merci.